li ñu jàpp moom moo di que juge bi la ndaw si waxoon ci bërëb ba kawe ba cour suprême Marème Diop Gueye dëgg ba fa waxoon ne jaay doole la ñu bëgg a teg Ousmane et que ñuy def yëpp teguñu ko ci yoon que yëfu woyu yi ñuy def dañ ko war a arrêté et que ñu bàyyi Ousmane comme tous le citoyens mu retiré fiche am day nga mun a participer ci parrainage yi loolu la kii firndeel tey mais kii dafa gën a sori dafa nekk lii état bi def wéeru ko fenn tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dëgg kon boog nañu dindaat Ousmane niñ ko dindee faase ko nañ ko ci delloowaat ci ni mu gën a gaawee te bu ñu jëlee ci benn du ñu jël benn mesure boo xam ne mun na tere Ousmane nekk ci liste yi te Ousmane bu nekkee ci liste yi day wane que ne Ousmane nga. candidat la à la candidature. maître agent judiciaire l'État nee na Sonko dafa jege mbokk kenn ci juge bi euh, moo tax mu recuser ko. tontu naa la nee naa ko yoon jege mooy lan waxul ne que xam na juge bi waxul ne que Ousmane lekk naag juge bi waxul ne aussi nan la tuddati euh, Ousmane Sonko ak juge bi am na firnde ne nan la tuddati euh, jokkoo nañu comme yéeru ko fenn dañoo jafur. nguur goo xam ne dafa nekk ci jeexantalam tey jii jafur nañu xamatuñu fu ñu jëm wóolootuñu kenn képp koo xam ne que xam nañ ne que kii bu ñu xëy na bu ñu jéemee ger doxul ñu xoqatal doxul bu boobaa duñ la wóolu ñàkk loolu moo tax fi mu ne xamatuñu ñoom fu ñuy jublu wante nañu xam ne que junni magistrat ngi ci dëkk bi ñoo xam ne am nañu fit bi am nañu sañ-sañ bi am nañu xam-xam bi te bu yàlla dogalee mu dox seen loxo dañu leen di gën a bottiwaat rek ci suuf. moom moo di que Ousmane Sonko dafa war a commencer ay parrainage am te it war a déposer candidature te loolu nag loolu moom mooy yoon dégg nga li ñuy def yëpp maanaam ci. xeetu noot la wante Sénégal yi yeewu nañu kenn du nangu ñu noot ñu te kenn it du nangu ñi nga xam ne dañoo jeexal ñu doon ay xong faaf dégg nga bëgg fee toog abada dayi man loolu day dàkk Saïd, oui. Saïd euh, Larifou du barreau de, Moroni aux Comores. C'est une victoire, il faut la savourer. Le combat sera très long, mais nous savourons avec euh, un immense plaisir cette première étape qui est une étape victorieuse. Dans une démocratie, il faut les institutions, mais il faut aussi des hommes euh, courageux, solides. Et nous pouvons dire que nous avons été très très bien servis. Personnellement, j'ai une immense satisfaction d'avoir, avec mes éminents confrères, contribuer à la consolidation des valeurs et puis de l'héritage euh, démocratique de ce grand pays qui est le Sénégal. La décision d'aujourd'hui va inspirer d'autres juridictions de d'autres pays également. C'était une contribution mais très précieuse que le Sénégal, une nouvelle fois, donne à l'Afrique et puis au monde entier, et d'autres pays africains, et j'en suis certain, d'autres magistrats des autres pays, j'en suis certain, vont s'inspirer du courage de l'institution judiciaire euh, du Sénégal qui se détache de plus en plus des autres pouvoirs également. Maître, est-ce que cette décision aura des effets sur les autres affaires en cours, notamment les fiches de parrainage ou encore l'affaire Adissar Bon, euh, sur l'affaire du parrainage, sans doute, puisque M. Sonko est rétabli dans ses droits en tant que citoyen sénégalais. Il retrouve ses droits politiques. Bon, donc, bien sûr qu'il sera candidat, plus que candidat encore. Quelle est la prochaine étape voilà. Euh, pour, pour, pour, vous, les avocats bah, Écoutez, c'est la prochaine étape, elle est politique. Pour nous, il n'y a pas judiciaire encore. Vous êtes satisfait aujourd'hui Je suis il est vrai satisfait, mais très fier du, du, juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que le juge a refusé de, a refusé de céder aux tentations? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidistance. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté à, au nord avec l'avocat général, Madame Diop Tout le monde a pu apprécié son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le Nord, c'est au Sud, le juge de Julien Donc le juge de direction lui donne raison, en réalité, que tout cela relève de la de voie de fait et d'une forme d'exister de la violence sur non seulement le citoyen Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens, des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. en le réprimant, en lui refusant ses droits, on force le jeu démocratique et déjà les parrainages ont commencé, la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit, j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais Attendons de voir le troisième. Maître, l'agent Si la proximité seulement devait jouer, d'abord c'est faux. Parce que Ousmane Sonko ne connaît pas le juge, le juge ne le connaît pas. C'est une vérité. Mais l'État dit que le juge aurait un frère qui serait un collègue de Ousmane Sonko. On n'a jamais parlé, il n'y a pas de lien de subordination. Il n'existe aucune, il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien d'amitié. Et il n'est pas dit que le juge connaît Ousmane Sonko. Alors, mais c'est quoi maintenant Est-ce que cela veut dire qu'Ousmane Sonko va être euh, euh, Est-ce qu'il y aura sur les autres affaires judiciaires La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale c'est une exigence du peuple sénégalais. Est-ce que juridiquement c'est possible maintenant? Juridiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons et le dernier mot appartient au peuple sénégalais. À partir de la décision de Ziguinchor, dès demain il devrait pouvoir commencer les parrainages.